الحمد لله الذي مجدد الأعوام آمن بعد آم افتتح بشهر المحرم وأجزل فيه الفضل والعطاء أنجى الله فيه موسى الكليم وأغرق فيه فرعون اللئيم وقال في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم عباد الله بعد انخداع عام حجر ودخول عام حجر الجديد يستذكر المسلمون دروس والعبر من الحجرة النبوية المباركة التي بدأت من أرض طيبة مكة المكرمة أحب الديار إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض دعا رسول الله أن يحببها الله عز وجل إلى المؤمنين كحبهم لمكة أو أشد الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين أخلصوا دينهم لله وتابعوا رسول الله على تمام والكمال ودافعوا عنه في جميع الأحوال وهان عليهم في سبيله الأموال والأولاد والأرواح غادروا الأوتار وهي عزيزة عليهم رادين مختارين مخلفين وراءهم كل شيء حتى أعز الله دينا ونصر جندا وامتدههم الله في أكثر من موضع في كتابه قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون mbokk jullit yi ñi ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñi ngi jéggulu yàlla subhanahu wa taala ñi ngi ñaan yàlla musal ñu sunu ay bàkkan ak sunu ñaawtee ñaawtee fi jëf ñi ngi seede na yàlla rek moo yeeyoo ñu jaamu ko di seede na muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo yeeyoo jàngale nañuy jaamoo yàlla gannaaw loolu mbokk julit ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla di sàmm seeni wax lépp doon lu yàlla gërëm su ngeen ko defee de yàlla baal leen seen bakkaar te it yéwénal seeni mbir ki texe àdduna ak allaaxira mooy ki nga xam ne mooy ko topp ndigali yàlla ak ndigali yonentam sunu borom moobu ñu ngi koy sant moom mooy wëlbati at yi di teral am at di ko jeexal tëral ko ci ay weer ubbi at mi nga xam ne mooy at mi ñu dugg nii comme nam ko ubbee ca des te la nga xam ne moom mooy weer bu yàlla wormaal weer woowu ñu tudde muharram ci arab doonte ne wala fi ñu ngi koy tudde tam xarit sunu borom yàlla màggal na ko lool sunu borom yàlla baril na ci ay ngëneel lool weer woowu la yàlla tànnoon musal ci Muusa alayhi salaam ma nga xam ne yàlla da daan wax mu koy dégg waaye moom it ca la labaloon firawna kàccoor bu màgg ba mbëru woon ci kaw suuf ba yegg sax ci ne moom mooy yàlla mbokk weer woowu it la yàlla tànnoon daa di ñuy nettali fa nga xamee ni nii yonentam ba alayhi salaam jaar na fa xeetam ba nga xamee ne décidé nañu ne nañ ko rey wala ñu tëj ko wala ñu génne ko gannaaw ba ñu doogu ci ne nañ ko rey ca la borom bi jalla wa ala jox ko ndigal ne ko ne génn Makka jëm Madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Abu Bakar daa di génn dem ca montagne sawru ca Makka laqatu fa yéeféer yi di ko wër ñëw ba ci buntu fi nga xam ne fi la nekk waaye yàlla dogal mënuñu koo gis moom la borom bi di wax ni sama yonent bi de ku ko dimbaliwul it man yàlla dimbali naa ko bis bi nga xamee ne yéeféer yi génne nañ ko nekkul woon lu dul ñaareelu ñaar ña benn armée la yoroon mook Abubakar kese yéeféer yépp ngi ko wër waaye yàlla dimbali ko ba yéeféer yi mënuñu koo gis sunu borom wàcce ci moom la nga xam ne mooy ndimbalam ca la ko jaaree génn ko makka mu nekk benn occasion boo xam ne ca la yàlla yëkkatee kàddoom ca la yàlla yëkkatee lislaam ca la yàlla toroxale ak kéefér loolu moo tax ba mbokk julit gis nañu ne weeru muharram heure bu tàbbee julit ñi dañu fàttaliku bind bu màgg boobu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn makka di dem madina makka googu nga xam ne mooy dëkk ba gën a loon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal mooy ngën ji dëkk sunu borom yàlla dogal moo ko saxaabaam ñu bëgg ko lool waaye ñu génn leen fa ngir seen diini ba nga xamee ne bañ demee ba madina saxaaba yi daan nañ xemmem makka di wax waxi makka ba yonent bi alayhi salaam daa mujj ñaan yàlla ne yàlla yàlla nag ñu bëggloo madina ni ngi ñu bëggloo woon makka xolu saxaaba yi doog a dal mbokk ñooñu mooy saxaabatul kiraam ñi sellaloon seen yéene ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam gëm ko topp ko matal kóllëri digganteem ak moom défendre diine yàlla ji ci mboole mi melokaan mu woyof ci ñoom lool wan gannaaw seen alal wan gannaaw seeni doom wan gannaaw seeni soxna génn nañ seeni dëkk daa di gërëm ànd ak yonent bi alayhi salaam jàkkaarloog noonu yu leen ëpp doole fuuf jihaad ci yoonu yàlla ngiree kàddug yàlla daa di jëm kaw ñooñee ñoo dem ba sunu borom yàlla tagg leen tagg woowu mooy lan mooy xoolal faqiir yi nga xam ne na am sunu borom tudd na tudd na leen ay faqiir ndax lañ amoon yépp bàyyi nañ ko gannaaw xoolal faqiir yi nga xam ne dañoo gàddaay yéeféer yi génn leen seen kër yi ak seen alal yi ña nga dem di sàkku ngërëmal yàlla ña nga dem di sàkku la nga xam ne mooy ngëneel bu bawoo ca yàlla sunu borom yàlla mu ne yemuñu ci loolu ba ñëwee gàddu nañ seen jaas yi jihaat ci yoonu yàlla sunu borom mu ne ñii day ñooy ña nga xamee ne ñoo ñu dëggu waaye it ba mu leen di tag ba mu leen di tagg fàttewul ña nga xamee ni nii allazina tabawwa'u daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa muhaajiruuna yooyu nga xam ne jóge nañ makka dem madina sunu borom ba mu leen di tagg fàttewul waa ansaar ya nga xam ne ñoo leen teeru woon séddoog ñoom seen kër ya séddoog ñoom seen alal ya demoon ba bëgg a séddoog ñoom sax seeni soxna ya yonent bi tere leen ñu daal di doon ñoo xam ne ni ay doomi ndey lañu loolee mbokk loolu mooy mbir boo xam ne nii bu màgg la ci taarix sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam daa di dajale waa madina ba mu ñëwee fekkoon nañ ñu nekk ay noon ñaari giir yu mag nekkoon fa di aws ak xasraj daan xeex-xeex yoo xam ne ëpp na téeméeri at yonent bi alayhi salaam jubale leen boole leen fàttaloo leen aws fàttaloo leen xasraj daa di leen di tudde al ansaar mooy ñii ñooy ña nga xam ne ñooy dimbali dina yàlla ji loolu heure bu ñuy fàttaliku muharram heure bu ñuy fàttaliku hijra suñu xelit war naa fàttaliku loolu mooy ñun njaago yi ñun tukulóor ñun wolof ñun séréer ñun bambara ñun lu mën a doon suñ xesee ba ne ashhadu an la ilaha illa allah muhammadu rasulullah dañuy xamee ne mbokk yooyu yépp dandu na léegi ay doomi ndey lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi bal lañu boole moo gën a màgg ndey ak bàyyi te mooy la nga xam ne mooy mbokkoog lislaam gannaaw loolu itamit ña jóge woon makka ñëw madina yonent bi alayhi salaam am na lu mu daan def képp ko gàddaay ñëw mu daal di lay boole ak kenn ci waa madina ne la yow day diw diw mooy sa doomu ndey doomu ndey googu fonkoon nañ ko ba képp ko masaan dee ci waa ansaar waa muhaajiruuna dañ lay donn ba baa sunu borom yàlla doog a wàcce benn aaya ca jeexitulu anfaal daa dina loolu bu mu amati ngalla waay ay mbokk yi rek nañuy donnoo waaye bind boobu yonent bi wone yi dañuy jàngal ne heure boo nekk ci am réew ay doxandem ñëw fa ngalla waay xoolal ndax jurit lañu am déet su dee ne ay jurit lañu bul jàpp ne ñii ay malien lañu bul jàppati ne ay bisawoo lañu bul jàppati ne ñii ay algérien lañu waaye jàppal na ñii samay doomi ndey lañu ndax ñun ñoo bokk kaddu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah lii lépp mbokk bokk na loo xam ne nii hijra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañu koy jàngal lii tamit bokk na lam ñuy jàngal sallallahu alayhi wa sallam wékku gu màgg goo xam ne wékku woon na ko ci boroomam doyloo yàlla gannaaw bam taxawee ci kanam waa Quraysh waaye wékku ci yàlla yi teewul nga daal di jël la nga xam ne mooy sabab ca la la yàlla may nga mën koo jël looloo tax yonent bi bi mu génnee Makka daadul dem jubal direct Madina waaye tey masalan bu doon dafa jëloon yoonu Saint-Louis ba nga xamee ni nii génn na daa dem làqu ji fële ca Ngor ngiree waa Makka heure bu ñu koy dab duñ ko mën a gis nekk na fa ñetti fan yoo xamee ni nii ma ngi fa làqatoon moog Aboubacar Asma bintu Aboubacar ak Abdullah doomi Aboubacar ñooñu ñoo xamoon fu ñu nekk di leen fa dimbali ca la nga xamee ni nii mooy lekk ga ak naan ya gis nañu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne génn na jëm mag jëm Madina am na benn waay boo xam ne doonte ne yéeféer la woon waaye ku wóoroon la ñu koy wax Abdullah ibn Urayqat ku xamoon àll lool doonoon benn gidd moom la yonent bi alayhi salaam woo ne ko pour mu jaara la ko ci yoon boo xam ne waa Màkk buñ koy wër duñ ko gis loolu muy wone ne ab yéeféer bu dee wóor na jullit mën naa jëflante ak moom même bu doon day dem ba wóolu ko ci yaramam benn médecin boo xamee ni nii yéeféer la jullit am nga droit su dee ne yow gisoo jullit bu mel ne moom nga dem jox ko sa yaram mu passé visite ne la bàyyil nangam defal nangam bu dee ne ko wóor la loolee mën nga ko caa nangul comme na yonent bi jële woon bakkanam ak bakkanu Abubakar bàyyi ko ci loxo ab yéeféer mu leen di gide ci yoon boo xamee ni nii day tax ba waa Màkka duñ leen mën a gis waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hijra boobu bokk na it bind bu màgg bu mu ñu fay jàngal mooy ba mu demee bay génn fekk waa Màkka liñ koy contre contre moom rek la ñu wóolu woon ku ci amoon looy dénkaane dañ ko koy indil daawoo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ne ko dénkaane waa Màkka ngi nii maa ngi dem heure bu ñu ñëwee ëllëg na nga leen jox la nga xamee ni nii mooy seen i dénkaane loolu mu lay won yow julit waxuma wor sa mbokkum julit laa loolu moom jéggi na dayo waaye xatta ab yéefér sax wurloo ko wor wuroo lekk alalam ci neen bu la wóola danga ko war a matal comme naka yonent bi alayhi salaam defe woon waaye beneen bind ngoo gi ñeel jeunes yi ali ibn ibn abi talib ba mu fanaanee ci loolu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam daanaka da doon risqué dundam ndax waa Màkka guddi googu lañ décidé woon pour rey ko bañ demee ba gis na kii kat ali la jàpp nañ ko façon dóor bu nañu dóor ko ko baba sunu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne moo indi ay kawtéef ci benn jinne boo xam ne moo naan cay ñee nekk ci yoonu madina wa kaza wa kaza te la waa màkka doog a xam ne yonent baa ngi jëm madina ala kulli xaal mbokk lii nga xam ne mooy ay bind yoo xam ne ay conférence moo ci waroon a am ci lu ñu war a jële ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ba keroog ba islaam amee doole islam am benn empire muy nguur gu yaatu ca la omar ibn alxataab radiallahu anhu ci atum fukk ak juróom benn ca gàddaay ga daa di woo sahaaba yi ne war nañoo am sunu calendrier bopp calendrier boo xam ne calendrier l'islam la sahabatul kiram daje réunion loolu nit ñi xalaat nañ ko waaye bokk na la tënk ci réunion ba gisuñu lu gën a symbolique lu gën a mandargaal lu gën a màgg gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jóge woon Makka moog sahaaba yi ñëw sanc la nga xam ne mooy Madina keroog nga xam ne ca la ñu samp masjidu Quba keroog nga xam ne ca la taxawal jàkkaam ju màgg jooju loolu daal gisuñu lenn loo xam ne gën na koo màggal ca la ñu commencé lépp lu ñuy datee ci ci lislaam ñoo koy datee ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk loolu ak sunu bisu tey bi nekk na ci junni at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ca ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee ba léegi loolu kon heure boo xamee ne ni tam xarit ñëw na ngalla waaye nañuy fàttaliku yonent bi waaye nañuy fàttaliku ay sahabaam nañu fàttaliku lan moo waraloon Madina nañu fàttaliku ne Makka mooy dëkk ba gën fa la yonent bi juddoo lan moo ko waraloon mooy daa dawoon ngir rawali diineem daa dawoon ngir laq diineem loolu it mu lay won ne yow mbokk julit xamal ne la gën a màgg li nga am ci kaw suuf du sa njaboot du sa alal du sam réew du dara waaye la gën a màgg li nga am ci kaw suuf mooy sa diine yal na yàlla sàmmal ñu ko àdduna ak alaxira yal nañu yàlla may dogu gam de mayoon sahaaba ya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad amin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qala taala إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النصيء زيادة في الكفر يدل به الذين كفروا يحلونه آما ويحرمونه آما ليواتئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين عباد الله قد دخل عليكم هذا الآم الجديد فتلقوه بترحيب والقبول والإكرام وعظموا فيه حرمات ربكم فلعل بعضكم يدركه هذا الآم ويكون في الآم القابل في عدد الموتى قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم عباد الله الحجرة قد انتهت بعد الفتح ولكن جهاد في سبيل الله باق إلى قيام الساعة وفق الضوابط والشروط وهناك هجرة من المع... عن المعاصي ومن دار الكفر إلى دار الإيمان ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فاتقوا الله عباد الله واقصروا من من طاعته في هذا الشهر وصوموا التاسع والعاشر منه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سام العاشر منه وقال إن عشت إلى القابل لأصومن التاسع والعاصر فقبضه الله في ذلك الآن وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم عاشوراء يكفر سنة مادية أي المكجلت نيجي يسأل سنت سنبرم جل وعلا ديكو ñaan mu julli ci sunu yonente ba muhammad sallallahu alaihi wasallam borom boobu nga xam ne li nee na li mu weer yi ca yàlla day fukki weer la ak ñaar ba yàlla bindee asamaan ak suuf ba tey noonu la ko séddale weer yooyu nga xam ne la koy mandargaal mooy weer bi nga xam ne day ànd ak jant bi sunu borom yàlla mu ne am na ci ñeent yoo xam ne dama ko wormaal mi ngi noonu lii de mooy diine ji nga xam ne mooy diine dëgg bu leen ci tooñ seen bakkan xeex leen ak yéeféer yi mboole seen comme niñ leen di xeexe mboole seen képp koo xam ne indi na beneen façon seetinu weer bu dul ni ma tërale kooku de mooy toñkat kooku de mooy yéeféer te loolu mbokk julit waxuma créer sa calendrier bopp waaye même calendrier borom bi nga xam ne mooy commencé ci muharram jeexa ci zulqaada da ngay gis ne yéeféeru jëkk ya daanañ def comme yàlla araamal ne xeex ci weer wi suñ jekkoo seeni noon ñu tudd ko beneen façon daal di koy xeex bu déwee na ñu changé ko turu weer yooyu ñu doon changé rek la yàlla bañoon ba ne ak kéeféer la moo ana ku ne fi ñukk nag calendrier borom bi daal di tënku ci beneen calendrier ca mbokk ma la saf xool leen li nga xam ne mooy jeexitalu atul islaam mi ngi amoon keroog altine ci guddi ndax dégg ngeen ay pétard yu takk ndax dégg ngeen xale bu yuuxu bal xamuñu sax ne am na lu xew amma bu dee calendrier bi nga xam ne dañ ko créé ñan ñoo ko créé ñoo xam ne bokkuñu ak ñoom diine bokkuñu ak ñoom aada da ngay gis ne bu 31 décembre jotee la nga xamee ne mooy dëkk bi yépp yëngu ndax xale yi rek ñoo yëngal la wallahi hatta autorités yi tout le monde ñu taaral dëkk bi taal ay feux d'artifice buñ xëyee suba ku nekk dajeeg sa moroom bonne année bonne année loolee mbokk lan moo koy waral mooy sori gu ñu sori diine l'islam sori gu ñu sori culture l'islam daa di mandi lool ci la nga xamee ne suñuy noonu ñoo ko indoon saxal ko ci ñun ci ay siècle ala kulli xaal xam leen ne l'islam mi ngi tàmbale ci bis bu jëkk ci muharram la sunu maam yi jàppoon te ne bisu ashura mooy bis bu jëkk loolee ay njuumte rek la waaye ashura mooy fukkeel amma at mi mi ngi commencé woon talaata ji passé loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax ak mu yees a ngi nii julit da koo war a teeroo dogu teeroo ko nangu la yàlla subhanahu wa taala di dogal ci ay jaamam daa di ci fas yéene du ci def lu dul lu neex yàlla ca xam ne loolee muy màndargaal loolee ñu cay fàttali ko di gàddaay sunu borom nee na ña nga xam ne day gëm nañ ma gàddaay ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla ak ña leen teeru woon teral leen ñii day dana leen ñel njéggal ak wërsëg wu tedd mbokk li nga xam ne mooy gàddaayu màkka jëm madina moom jeex na amma am na lu des ba ila yumi din mooy li nga xam ne mooy jihaad ci yoonu yàlla ak façon bañ ko mën a defee ci sunu alal sunu bakkan ak sunuy wax bu dee dëppoo naag shurut ya nga xam ne lislaam tëral na ko te nañu war a jihaate waaye mbokk yi am na loo xam ne des na ba tey mooy gàddaay goo xam ne du fay ba ila yumi din mooy julit jéem a gàddaay la yàlla araamal ci moom loolee julit da ko war a yeesal fu mu mën a toll bakkaar yi nga xam ne nekk na ci yow yàllaa ko araamal ci yow nga la waay waajal ñaanal yàlla jéem koo gàddaay yow mi yàlla na too woon naan sangara ban pexe nga mën a am ba gàddaay sangara yow mi yàlla na too woon njaaloo ban pexe nga mën a am ba gàddaay njaaloo yow mi yàlla na too woon jël alalu jàmbur nan nga mën a fexe ba gàddaay loolu loolee ku ne ci ñun da ca war a góorgóorlu bal ku ne ci ñun war naa mën a góorgóorlu dëkkuwaay ba mu nekk su dee ne nekkul dëkkuwaay bu yàlla gërëm mu jéem faa tuxoo dem ànd ak dëkk boo xam ne yàlla da leen a gërëm bal bu la yàlla nottoo woon ci kër goo xam ne la fa nekk mooy bàkkaar ak lu neexul yàlla guddi neexul yàlla bëccëg soo amee pexe gàddaayal kër googu dem ci kër goo xam ne nii lu neex yàlla moo fay am su la yàlla nottoo ay xarit yoo xam ne xarit yu bon lañu njaaloog sangaraak wax lu dul noonu rek mooy seen at seen seen aada su dee mën na leen a soppi nga la waay gàddaay leen dem uti waaju ragal yàlla nga ànd ak moom te xam ne nit ku nekk yaa ngi nekk ci diine ña nga xam ne ñooñ ngay ñooñ ngay àndal ay yéen mbokk yu lit na ngeen ragal yàlla bari leen ak jaamu yàlla ci li nga xamee ni nii moom mooy weer bii nga xam ne dugg nañ ci at mu yees mii nga xam ne dugg nañ ci xam leen ne at mi ñu passé duggoon noonu nañ ci ak ay millions ci ay doomu aadama sunu borom yàlla jël na leen ci kattanam yàlla dogal nañu dugg ci at mi lan moo ñu leer ne daan ci génn ndax buy teruwaat du ñu fekk ci biir suuf loolu moo tax ba nañu góorgóorlu seen kemtaleel kattan xool lu ci yàlla gërëm ñu jéem koo def bokk na la ca yàlla gërëm mooy jéem a woor bisu juróom-ñeenteel ba ak la nga xamee ne mooy bisu fukkeel ba loolee naka yonent bi alayhi salaam defe woon daana woor ashura mooy bisu tamxarit mooy bu nit ñi toggee seen cere yi ba ca suba ga daana ko woor muy bisu ashura di ko woor ba baa atum en juróom-ñeenteel ba loolee da ngay gis ne sahabatul kiram yonent bi bokk na lu mu leen mujjoon jàngal lépp lu ngeen gis ahlul kitaab di ko def na ngeen uute ak moom ñu ne ko ah moo ne day bis bii nga xam ne mooy bisu tamxarit yahud yi tamit dañ koy màggal di ko woor yonent bi alayhi salaam ne kon bu déwénee danaa woor man juróom-ñeenteel ba ak fukkeel ba su ko defee ñun ñu woor ñaar ñoom ñu woor benn yàlla dogal déwén jooju fekk ko fa waaye mbokk julit loolee nga gis na mooy yowma ashura yonent bi alayhi salaam sahaaba yi laajoon nañ ko na ko waaw buñ ko wooree lan lañ ci am mu ne yàlla dalay baal bakkaar yi at mi nga passé yépp loolee mbokk julit amul lu gën a màgg yàlla baal ko ay bakkaaram loolu moo tax ba mi ngi tombeek àllarba jii di ñëw mooy la nga xam ne mooy Ashura ci àdduna bi yépp di xéewal gu màgg ci la nga xam ne information yu ñu yëg na doon Makka ak Sénégal ak yépp d'accord nañ ci ne talaata moo nekkoon la nga xamee ne nii moom mooy bis bu jëkk su ko defee kon àllarba mooy bisu juróom-ñeenteel bi waaye alxames mooy bisu ashura su la yàlla mayee nga mën a boole woor àllarba ak alxames loolu day yiwu màgg la waaye bu dee ne sa yaram sawarul it nga la waaye góor-góorlul yow góor yow jigéen bisu alxames ba nga def ko bisu koor alxames même bu dul ashura wóor ko ngeneel ma nga ca rawatina nag mu tombeeg li nga xam ne mooy ashura soo ko wooree yàlla balla bakkaar ya nga xam ne passé nga ko yëpp lii mbokk mooy la nga xamee ni nii moom mooy sunna ci tamxarit na am bu dee da nga déglu rajo yeeg télévision yi daal la wax ay mbir yu dul jeex yoo xam ne ñoom dañ koo jàng ci ay téere waaye maa ngi lay seedeel ne borom xam-xam yi yàlla ah yaatal seen xam-xam xam nañ ne loolu lépp ay nit ñu xër rek ñoo ko indi ci lislaam waaye bokkul woon ci lu yonent bi mas a def wala ay sahabaam mas ko def bisu tam xarit nañ jàng junniy xulwa xulwa laahu ahad ak a baax waaye yonent bi musul digle loolu bisu tam xarit nañ ziyaara borom xam-xam ziyaara borom xam-xam ak a baax waaye yonent bi musul digle loolu bisu tam xarit nañ ci lelli suñuy we bisu tam xarit nañ ci watu nañ ci teral jirim nañ ci kaza wa kaza mbokk yooyu yépp ay jaamu yàlla yu baax la waaye yonent bi musu koo jagleel tam xarit année bi yépp nga war a teral jirim année bi yépp nga war a baril jàngu xulwa année bi yépp nga war di lelli say we année bi yépp nga war a ziyaar borom xam-xam amma yeneen yi nga xam ne sunu maam yi ñoo ko créé moo dina ne da nga caa war a nekk di tusngaloog wala takk ay xaawak wala ay këppag wala ay yu demee noonu loole moom aaday maam yi la xam ne xam ne tasaaroowul sax ci réew mi soo demee waa kajoor lañ ca xam saalum xamu ko waa saalum la ñuy def waa fuuta xamuñu ko yooyu moom mbir la yoo xam ne dañ ko war a sànni ca àll ba kenn waru koo jëfe tam xarit kenn waru koo jëfe leneen lu dul tam xarit lii mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax mu amin ñaari jéggi dayoo yoo xam ne am na ci tam xarit benn bi mooy lan boobu sunu waa réew ci la ñu bokk ñu ne bu bisu tam guddi tam xarit ñëwee am na ay téere yu ñu bind ne ku ci yaatal sa njaboot yàlla dana la yaatal at bi yépp comme sunu maam yi nag cere la ñu amoon bu bisu tam xarit ñëwee ñépp togg ay cere cere yi fees dell bala ca ëpp sax boo muytul day yàqu ndax ñu ne loolu dafa doon lu sax mbokk maa ngi leen di seedeel loolu saxul ci sunna yonent bi alayhi salaam musul togg cere tam xarit ay sahaaba musuñoo togg cere tam xarit loole ñu bàyyi ci xel bu baax amma beneen mbooloo julit ñi soo demoon tey Iran wala nga dem Irak boo fa demul it am nga télévision bu la koy won ñoom bu tam xarit jotee dañuy jël ay paaka jël ay chaîne di jam seen bopp di dóor seen bopp xatta seen doom yi bot ci seen gannaaw sax da ngay gis yaay ju jël paaka dagg doomam deret ju tuuru lu tax loolu ñu ne bis bii ci la ñu reyoon xusaynu sëti yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ koy naqarlu ba da ngay gis lu mel ni Iran ñu bare bari ñoo cay dee Irak ñu bari bari ñoo cay dee ngiree naqarlu bi si tam xarit ndax ca la ñu reyoon xusaynu mbokk loolu tamit ak réer la baayu xusaynu moom mooy Ali lu tax bis dañ ko reye màggaluñu ko ak ñeneen ak ñeneen ci sahabatul kiram loolu lépp seytaanu moo ko def su ko defee yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a roy sunna yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a roy yonent beeg sahabaam xamal ne tam xarit yàlla diglewu ci dara dara yonent bi alayhi salaam diglewu ci dara dara lu dul boo ma ne bisu fukkeel ba na nga ko woor soo ca boolee juróom-ñeent ba xayrun soo ko te boole wulit ngalawaay nga woor la nga xam ne mooy bisu fukkeel ba te it ngay bàyyi xel ne yàlla mi tànnoon li nga xam ne mooy weer wi musal ci Muusa tànn ko musal ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xat-xat yi nga nekkee yàlla mën na la caa génne nga bañ a dagg sa yaakaar ci yàlla toroxlu ci yàlla ngiree yàlla musal la waaye ngiree yàlla dimbali la waaye dimbali it la nga xam ne mooy say mbokk julit daal di dimbali lislaam yëkkati ko comme nam yëkkati woon dina yahud ca ca jamono Muusa yëkkati dina lislaam ci jamono Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu lépp mi ngi ko jaarale woon ci weeru màgg bii di weeru muharram yàlla yàlla def ko ci ñun weeru toroxlu ñeel ko weeru gëm ko ñeel ko weeru gàddaay lépp loo xam ne tere na ko ci ñun yàlla yàlla def ko ci ñun weeru jëm ca lam gërëm ci ñun yàlla yàlla defañu ci farjan wa maxraja yàlla ci yàlla dimbali lislaam ak jullit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla yàlla yéwénal ci sunu njaboot yéwénal nañ ci sunum réew wayefal ñu sunu dund daal di ñuy teg ala sirat al mustaqim allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الشرك وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين